الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي جولي وكي سنغال يولي دي نيو كي تولو أكسانت من ما كي تولو فالي نو باكي président de l'ingénieur Ben Auf Bild Ben Auf Bild

ko saytul këram euh, rawatina diaspora bi nga xam nekk ni ñu ngi am yéene am kër fii Touba ngir màggal gi ak itam seeni kër yu dalluwaay ku ci soxla rek fi amee terrain ba noppi des na ko ko a defaral ko ba jox ko ay caabeem bu fekkee amagu fi terrain itam dañ ko mën a jaay terrain ko ñu ko bëggee lépp rek lu muy waxtaanee lay doon suñu ay contact 77 613 06 73 77 677 16 36 mooy suñu ay contact di leen jërëjëf di leen jaajëfal bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu